ay ca mbër ñu ngi lay ziar. doolu ziar ñu ngi lay fay waaw. présenté wul. waaw man la bébé Zafou bu Kër Masar mbooloo waaw di la sant bu wér di la sant sa waay bu baax di sant sama ñaari waaju ñaa sama papa yàlla na ko yërëm yàlla suuf sedd si kon si ak ñi fa tëdd ñëpp. bokk nga bokk ci tournoi ñing production bi lan ngay wax. waaw man man maay waaw maa war a bëreeg waa Sine Teur waaw waa Sine Teur waaw mbër bu bëri wax bi rek. Wassintor moom turam bi ñàng na. déedéet waru woon tuddee ay Wassintor yow jën yu baax yi nekk fi mu tuddee ay Wassintor man bébé sa ay ngot nekk fii. waaw ay Wassintor yoo xamante ne dañuy gas suul wala sànni ko mu fi tuddee bopp. loo nar ci moom. lu ma nar ci moom wax ji bu yoo lu sant na ko sant fii bu bis baa may borom man man bébé safu xale bu ndaw di nàmp ba léegi feregu ma waa Kër Moussa Mboyo dañ maa yónni yàqamti ma di woo waa Kër Moussa yi waa Mbëbës yëpp bu woo M3 ñëpp. barki alxuraan combat bi daf ma jaral na mobiliser te man xam ne xale bu ndaw laa damay mobiliser man macha allah waaw di ko ñaar hélas nag hélas di ko bëggee bu wér sama gaayan ak Fane Mbacke ak ñoom Pape Voldo bëggee gaa yëpp m ñëpp sa mu koy jàpp mu koy jàppee mu xam ni lépp dëgg la su ma koy jàpp di ko daan bu so ma koy yóbbante bi ngir yàlla bu demee foofu nag boo boo demee foofu na ma moytu nag moytu mu lekk sa micro bi sa micro bi moytu mu lekk ko ndax daa am micro ci biir <laughs> waaye seen waaw jën coof. pourquoi nga tuddee sa bopp Wassintor. mais xam nga ñun ay ndaw lañ ñun mënuñu dara dañuy jéem quoi suñu suñu grand ginnaaw la suñu grand yi seen ginnaaw lañ ne quoi ku mel ne ay mbay guy gi ay lay soppi ay Nokia seen ginnaaw lañ ne quoi. waaye nee na da ngaa ŋaamu da ngaa bëri wax. waaw mais signature contrat lañ wax foog ñu wax te combat bi man mosuma wax ci combat mais lamb ji daf ma jaral moo tax ma ciy wax quoi te bu dee doole barke Roussaay maa ko ko ëpp maa ko gënoon xale kii lamba sax waruñu boole parce que maanaam lamb ji moo metti léegi moo tax ma jël ko man cinq combats laa bëre am ci quatre victoire benn défaite dama toj àll bi soog a ñëw Dakar noonu la demee ma am mbooloo nag di di fas jom di fas ful combat bi. nee na ma nee na ma moo la mën moo la ëpp doole moom. kii wax ju wax wax ju yàqu rek wax ju muy solu tubay parce que ku bëre cinq combats moom musul bëre ku bëre cinq combats moom musul bëre ma jël ko xam ne lamba moo toll foofu quoi man sama bët grand combat bi lay xool mais du moom. xoolal sama cameraman bul ma xool. yaa moom la yaa waaw waaw loolu dëgg la mais damay ne combat bi man maanaam combat bi maa ko gën a fare ci physiquement ci mentalement ci financièrement billaay walaay talaay maa gën doon xale xool suñu kanam yi bu baax maa gën doon xale foofu te fu ma ko jàpp dama koy buddi bu doon dalee ma ko mu. nee na ma nee na ma lu tax ngay tuddee sa bopp Wassintor xam moom. waaw moom foofu noonu la xalaatee quoi moom noonu la xalaatee mais Wassintor moo ko gën a siiw foofu la mooy caadu kasu kenn xamul caadu kasu fu borom yëba bab kërëra Hercule da ngay attaqué fir rek bàcc ren rek jéegi waa bu bëri waa dama koy tegal baam bi su noppee dama koy jox kurus dama koy sa waay waay nga war a bëre waaw waa ji laa war a bëre su bëree wax rek dama koy tegal baam bi da nga naan sa waay xamoo nu mu tudd dafa jaas la tudd daf man damay faj dof yi damay faj dof yi am na benn moromam dof ba ma musoon a wax ñu daje ba li nga di bëre mu ne ma man la dof bu yàlla yónnee man la ko man la yàlla yónnee pour faj dof yi ma jàpp ko daan ko jël bu rëy moom mu ñëw naan ma tamit moom la mooy dofu jaas su ma ko jàppee dama koy faj jour boobu. sa waay nee na faj. balaa maa dara dama naan malaaka deng jalwaar maa ngi lay maa nuyu kii aw ma lu ma wax ak moom daam lu ma war lu ma war a prouver waa yëmbal war ka internet yi bëri war da nga war a wax man da nga war a wax man de man boo waxul man naa teg lu metti kii du ma amuma lu ma wax ak moom xam nga la laa seek moom arbitre soufflé man Dofu Diaz ñëpp xam nañ ma ak lu làmb ñëpp xam nañ kan mooy Dofu Diaz. kon moment bi def xale am fi da koy def. moment bi nekkuma eh, di wax. yëmbal dañ ma sas. làmb jii nii dama leen ñaan leen ku si mel ni baaragay maçon spécial dama bëgg mu jàppale ma si làmb ji yàgg na see jàpp. gis na combat bi lu mu la jaral. combat bi lim ma jaral mooy waa yëmbal dama leen a ameel bor bor boobu laa fay. te bu bis baa Hercule dina xam ne xale bu ndaw la ko sekkal billaahi si kàttanu suñ borom su dëgëlee boppam ma duma ko su taxawee ma fekk ko fu mu taxaw su arrière fu mu taxaw dama ko fay fekk bu arbitre soufflé eh man ngay waxal doomu conke si ba borom 22 village yi man ngay waxal de mos nga maa gis man ma arrière wala di daw loolu sama combat yow wër nga yow xam nga looy wax kii xamul ku muy waxal capitaine Lamane Ndiaye eh. ngay waxal dof bi waaw Guèye bu Fass la doomu Colobane doomu Saloum aussi doomu Gambie yow kan nga war a dajal. malam ñaani numéro 2 laa war a dajal moom laa war a dajal. loo koy yóbbante. waaw lu ma koy yóbbante mooy lu mu waaj rek doyul quoi te li ma koy yóbbante tamit aussi moom na xam ne combat bi combat du ko dàq jour booba. tax nga wax loolu. non dama xam loolu. parce que ndaanaan ngay dajal xam nga loolu. lay dajal. ku ñëpp ngay dajal laa man ndaanaan lay dajal ku ñëpp nangul mais man ndaanaan ku le la fas Fass laa waree. Fass Cuune du fa waree mukk barke Serigne Touba. ah ma wax ñemewu ma la koo wax. ah moom day ay wax rek la ci am. déedéet waay kuy kuy wër di wax moom ak kuy jëf moom mënuñoo bokk. wax nga wax loolu. non moom day wax. looy dem. man damay jëf de man arbitre bu ne pire dama koy duma ba gaay nangu ko. bilaay walaay moom saasam mooy ma dóor ko mu daanu. saas li saasam mooy ma dóor ko mu daanu rek. saasam mooy lan. mooy ma dóor ko mu daanu. sinon dama koy ray foo teg loolu. non kii du mbër man xam naa ne kii du bi ma jël xamuma de. waaw sant alhamdulilah sant bu baax baax baax dem nañ gaam bi ci jàmm ñu ànd ci jàmm quoi. kan nga war a dajal. teq jël. teq jël. waaw teq jël du la teq jël la. yàlla baax na yàlla wax baaxul. du combat wax quoi combat jëf la quoi. yàlla nañ ci yàlla ma ñu si ndama. Ah. ngay waaj nan ngay waaj. waaw comme ni ñu rek dem nañ gaam bi préparé ñibbisi nañ. waaw ala teg nañu lu métti Malick aussi teg nañu lu métti ñibbisi nañ tamit nekk sunu entraîneur. suñu coach Papa moo ñu tegaat lu métti en même temps waaw lépp daal ñu ñu ngi si quoi di liggéey. mooy wax ñi nga. waa ñi ngi moom xam nga mention spéciale di ko ñaanal jàmm te di ko sàkk ci moom lépp lu mu seen ci làmb ji suñu borom yàlla na ko yàlla xam nga dogal mu moté di daal. tekk jël daal le piment de l'arène borom fobeere ménager rakiste jabise soulagé saale waale yàlla waale noonu la fa demee. daa jëf a a est-ce que du la réparé. ay clem feeraay la jëm barki yërënd bi. est-ce que du la réparé. non mënu maa réparé ay clem daa daa xumaat da ko waroon mu ñëw dugg ci téex. waaw bon na dëggal boobam rek. na dëggal boobam xam ah nga bañ a bañ a def affaire laata guerre yooyu quoi di yegg gauche droit géej waaye mooy loolu. Balla Gaye mooy gaynde gi. <laughs> la doomu Mbawar bi. kan nga war a dajal. Ama bi yow laa war a dajal borom waxkat bi. wax waxkat la. wax rek lay def topp si di wax. Ah. dinaa ko xamal ne. surba man maa ngi ñëw jàpp juróom la muróom la soróom la juróom la deg deg suuf gi muñ mënaat na yëkkati ba ci kaw dóor ci madi ko damay defaraat maa woo waa Mbawar amaa bu yow amul lu may wax ak yow bis ba laa xaar nga ñëw ma jëf la te incha allah bis buñ jëflantee di nga xam kan mooy jeex jàmm di nga xam ne tur wuy na borom ba barke Serigne Bamba Mbacke bis ba lu fay aman maa koy def di woo mbokki Mbawar Mbawar yëpp na ñëw jàppale ma ci bis bi ñoo ci war a jàppale looy wax waaw ñi ngi nag li muy def lu baax la wax dëgg yàlla sponsor bi nañ ñëw jàppale ko xale la di jàppale xale yi ñun làmb làmb lan lan yaakaar dañoo bëgg a tekki ci làmb incha allah te ñoo ngi ci yoon wi waa ñu ngi woo waa Mbawar waa xam nga. waaw ñu lay delloo fay bu baax a baax. tur la. Yankaw la. Yankaw Yankaw. ba nekk nii. Doudou Baka Sarr. kan nga am. man maa ne ci kalaafu i ñu ngi bi. kan nga am. non tirage guñ ko instant bii nii dañoo ñëwoon tey pour ñu tirage. bi ñu sant yàlla julli si bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant fi ñu mu muy bentale ñaari tali Biscuiterie Grand Dakar di nuyu waa Bawol gi nga xam ne fa la ñuy yeewoo waa Touba waa Saloum di wax ne seen doom a ngi ni nekk ci waajtaay ñu ñaanal ñu tirage bi ñun ñëpp ñooy bëree na man pare bëre tournoi bi ñi ci nekk ñeme nga leen déggoo ma leen ñi kuy rêvé doon roi des records mënoo ragal yu noonu man 2016 laa dugg ci làmb ñaata victoire nga am man maa ngi am 7 combats 4 victoires 3 défaites ñaata kan nga daan man fi sa salo laa daan ak bébé kale ak réparé si ku koñaa la koñaa ngay am noonu koñaa nuyu la maa leen di fay maa ngi jàmm maa ngi la war a bëreel jëlal tàng ñeme nga Ronaldinho ah ñeme nga ko man xale laa amul ku may ragal ci làmb parce que daa fu war a ci làmb yee